kon aw melo la ci melo suñu borom yi ndax wenn melo ci melo suñu borom yi suñu borom ne laa tudrikuhul absaar wa huwa yudrikul absaara bët du gis yàlla lu koy gis leeru xol leeru xol la muy gis ndax suñu borom dëgg la déedéet ca melo wa mu meloo tabaraka wa taala lenn mënu koo dékk du lenn loolu tax sëñ Tuubaa bi nga xamee ne radiyallahu anhu waa gànnaar werante woon nañu ci maayee boobu bi ñu ko laajee dafa ne leen ku xamul jëmmi yàlla ja nu mu demee doo xam ànd gi mu ànd ak bindee fii na mu demee kon te waxtaan ci loolu day rek ci gëm na ngeen bàyyi loolu na ngeen bàyyi loolu teg leen ko fële te bu leen ci wax nga gis kon nit ki xam yàlla dëgg dëgg dëgg moom ni mu xamee yàlla na mu xamee fañi nit mbindeef war a yem ci yàlla ak fa mbindeef dul ànd su borom bu fekkonte ne sañ-sañam bi wan nañ ci wenn ferñeent mbindeef mu ne da nga jàpp ne yow kat safar rek nga ndëkk ndax suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindee àjjana ba noppi dafa woo Seydina Jibril ne ko demal nga seetal ma àjjana ba xam noo ko gisee bi mu xoolee bi mu jubee àjjana xool gis ca tuuti rek dafa ne suñu borom giñ naa ci sa mag bi ak sa teraanga ji ne amul benn mbindeef muy mooy àjjana ndax lii ni mu mel ku ko xam rek dootoo noppalu foo toll ci jaamu yàlla ngay dëkk te doo def leneen lu naqar yàlla suñu borom dal di fat naqar yi ak métit yi ak tiis yi wëree ko safara ne ko dellu nga seeti ko Seydina Jibril dem ba jub safara gis tiis yi ak naqar yi ak métit yi mu dellu si ne suñu borom giñ naa ci sa mag bi ak sa tedd nga gi ne benn mbindeef bi dem àjjana ndax yii métit ak yii tiis kenn mënu koo muñ ngeen gis ne kon àjjana bala nga fay dem ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne xuffatil jannatu bil makaarih àjjana ay naqara ko wër ak métit ak i tiis kon jëmm joo xam ne jàpp nga ne rek da ngay nekk ci adduna itti woon dul sa adduna rek bu julli jotee nga julli bu woor jotee nga woor rek yem ca nga jàpp ne mbir mi noonu la woyafee te jàpp ne duñ la teg tiis woo xam ne nii da nga koo war a muñ te jàpp ne yàlla du la mas a teg naqar woo xam ne da nga ne siiw génn adduna jàpp ne doo sonn coono boo xam ne ngir bëgg a mucc ëllëg rek kay tax ba nga fàtte lépp loo amoon dul nga jàpp ne rek noonu la yombi nga déglu shayatinu lin si mooy seytaane yi ci adduna bokk ci nit ñi di leen ko yombalal ndax jàpp ne duñ la teg tiis woo xam ne nii da nga koo war a muñ te jàpp ne yàlla du la mas a teg naqar woo xam ne da nga ne siiw génn adduna jàpp ne doo sonn coono boo xam ne ngir bëgg a mucc ëllëg rek kay tax ba nga fàtte lépp loo amoon dul nga jàpp ne rek noonu la yombi ni nga déglu shayatinu lin si mooy seytaane yi ci adduna bokk ci nit ñi di leen ko yombalal ndax ngir nit ñi waru ñi nga xam ne noonu lañ koy jàppee dal di waru mu jàpp ne mbir mi noonu la yombe da nga am ëllëg mbett suñu borom bind safara woo jibril ne ko demal nga seeti ko ba ko jibril jubee juróom-ñaar fukki junni ak ci dox wàññiku ne suñu borom giñ naa ci sa tedd nga gi ak sa màgg gi ne safara kenn du ca dem ndax ku xam ni mu demee doo def mukk lu la ca yóbbu te da nga def lépp loo xam ne dana tax doo ca dem suñu borom fab bànneex yépp wërale ko safara ne ko demal nga seetaat ko jibril daal di dem gis bànneex yi nga xam ne moo wër safara lu la neex def lu la neex wax ku la neex dem doo ittewoo lu dul sa jëmm ji na mu setee na mu sole lu rafet na mu dëkkee fu rafet na nga lekkee lu neex ak noo ko mën a amee seetu loolu lu dagan ak lu daganul seetu leen adduna ji lu gàtt la te da nga fiy jógee te xamuloo tey la wala ëllëg bànneex yooyu yépp wër safara sidna jibril bi nga ko gisee dellu si ne su borom gis naa ci sa mag gi gis naa ci sa teraanga gi gis naa ci sa kattan gi na safara kenn du ca mucc ñëpp a cay dem ndax bànneex yépp ma nga ci buntu safara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xuffati naaru bi shahawaati safara peet nañ peet nañ ko ak i bànneex ay bànneex rek a ko peet mu dellu ne addunya sijnul mu'mini wa jannatul kaafiri adduna mooy jéngu mooy kaso ku gëm yàlla te mooy ajjana yi képp koo xam ne kii weddi nga yàlla gis na kon adduna suñu borom bu ñu ko fi indee indiwu ko ngir bànneex ndax ba mu bindee ruu yi te bindagul jëmm yi dafa jàlloog ñoom ca péyam bu sell ba fekk ruu booba xam na boromam ndax joteegul ak ñëwagul adduna joteegul ak yaram dara suñu borom ñu ne alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom booba ruu xam na boromam ñu daal di ne balaa tey yaay suñu borom suñu borom xool leen daal di xam ñi nga ci xam ne dañ koo wax te teyuñu ko ak ñi nga xam ne dañoo toppandoo ñu ci def rek dégg ñu di ko wax ñu wax ko ak ñi nga xam ne xam nañ xamul wax nañ ko waaye xamul sax wax nañ ko mu déet mu ne leen fen ngeen ñu bari ci yéen fen nañu dal di fab nag ruu dugal ko ci yaram indi ko ci àdduna xamal ko bànneex xamal ko lu wan ko lu teew ni mu neexe xamal ko ne li mu leen dig lépp ëllëg lu ñëwagul la te dafa yàgg dana bu fekkee ne sa ngëm foorul dana yàgg ci yow ba mel ne da ngaa gëm ne du amati mukk ngay jëf jëfi koo xam ne kii dañ ko ne li ñuy wax lépp dara amu ci ëllëg amul ajjana amul safara amul nga fàtte loolu ba mu doy di ci sa xol woyof ci sa xol ba doo ko fàttaliku lu dul lu néew a néew a néew ba nga xam ne nag suñu borom def na noonu ne leen maa ngi leen di seet nag ba xam li ngeen waxoon ba man leen ne aras bi rabbikum da ngeen ne ah kay yaay suñu borom ndax loolu dëgg la woon ci yéen wala déet ñu seet ñi gën a bari ci nit ñi bi mu bindee adduna adduna xadratul xulwa adduna di lu neex lu teey lu nëtëx mu wan leen ko ñi gën a bari ci nit ñi walbatiku wan gannaaw yàlla jublu adduna mu seet ne juróom-ñeenti kuréel yépp dem nañu wu- jublu ji adduna des na benn kuréel kuréel boobu itam mu dal di indi naqar yi ak tiis yi ak muñ yi dal leen koy teg ba mu ko defee ñoom ñu séddali ko fukki xaaj juróom-ñeent yépp dal di wan gannaaw yoonu jub wan gannaaw yàlla ngir tiis yooyu ak métit yooyu dal di dellu gannaaw ne li ñuy doon dikk dañuy caaxaan rek noonu li bakkan ko bakkan du ko fekkee mu def benn kuréel bi benn kuréel boobu mu leen waaw yéen lu ngeen bëgg wan naa leen àdduna ak bànnee xam faalewu leen ko ma teg leen tiis ngeen muñ ko lu ngeen bëgg ñu ne ko yow rek yow rek lañu bëgg mu ne yéenay samay xarit yéenay sama jaam yéenay samay nit dëgg danaa leen defal loo xam ne lii nopp du ko dégg lamiñ du ko laal bët du ko gis xel du ko xalaat ñooñu ñooy jëmm yi nga xam ne bi ñëwee ci àdduna fàttewuñu benn yoon seen borom moo di ndax ruu bi mu duggee ci yaram dafa feebar dafa tawat ni ñu koy faral di waxee rek tawat boobu mu tawat moo tax muy bëgg lu bon mel ni ki tawat bay lekk suuf nga xam ne ku la gën a fatt xol ku la xolam gën a néew ak leer moo la gën a ñemee def lu dul noonu moo la gën a yàkkamti ëllëg moo la gën a yàkkamti bànneex moo la gën a fàtte ëllëg moo la gën a fàtte yàlla ba du ko xalaat du ragal dara lépp lu ko neex rek mu def ko am ci ruu yoo xam ne bi ñu duggee ci yaram tawatuñu wér gëñ wéroon la ñu defe muy kon xam bañu xam gañu xamoon yàlla ak bañ gañ bañ gañu bañoon lu bon bañu ruu yooyu ba mu duggagul ci yaram ñu mel noonu ba tey mooy yonent yi ak ñi nga xam ne tuuti la ñu tawat tawat ji yàqal leen lu bari mooy kumalul awliya yi awliya yooyu nga xam ne ñoom it seen xol àgg na ci jàlloog jàkkaarloog màgg suñu borom bi tabaraka wa taala mu dugg leen dugg gu nekk léegi nag borom xol yi ràgg yooyu woon nga xam ne bi ñu duggee ci xol dafa feebar ñu fàtte lañu xamoon mel ne rek borom xam-xam bi nga xam ne dafa def accident ba bopp bi yëngu yuur gi yuur gi dérangé xamatul dara faaw ñu faj ko ba mu wér soga delluwaat xamati fàttali ko la mu xamoon bu njëkk roo noonu la mel bi mu duggee ci yaram dafa daal di tëx gisatul dara déggatul dara la mu xamoon jëm lépp mu mel ne mosu foon a jaar boo gisee wàllu yi di wax naan maa ngi fàttaliku bis ba suñu borom di wax alastu bi rabbikum nga xam ne booba roo yi rek am bindagul jëmm yi kooka ba mu ba ruuxam duggee ci yaramam itam dafa am doole am doole boo xam ne yaram bi taxul mu feebar roo bi feebarul ma ngay gis la mu doon gis mu di ko fàttaliku di xam lépp na sëñ Tuba waxe bayitu wa ba ne ajabani xamal ba ne sabina alfan qabla xalqil xalqi ajabani rahman ko ma amoon na wala bil xaqi sabina alfan qabla xalqil xaqi bu sëñ Tuba rabbil anhu ne suñu borom wuyu na ma nangu na sama ñaan juróom-ñaar fukki junni at te bindagul mbindeef yi ma ne su ko wax ku xamul tasawuf ndax nit ki xamul mooy weddi waaye ki xam du weddi ki xam li mu wax lu tax mu xam ko mu mel ne ki xam banque bi ñaataa ci nekk waaye moomu ko mu xam ne diwa ko moom mën naa bu ko neexee mu waxtaan ne diw am na nangam diw am na nangam mooy ñi nga xam ne xam nañu tasawuf ba nga xam ne lu gaa yi yàlla yi wax xam nañ li tax ñu wax ko waaye nag xëy na ñoom ab buñu jaloo la mën nañu bañ a àgg ca maqaama mooma waaye duñ ko weddi mukk ndax xam nañ ko kon dégg gëm ñaar la ki nga xam ne dafa xam ñu wax muy fi mu tegu nga xam ne bu ko adduna bépp weddi woon moom du ko weddi mukk ndax xam na ko ak ki nga xam ne dafa dégg rek gëm mooy ki nga xam ne dafa am ngëmu li ñuy wax la foi du charbonnier wax nañ la rek nga gëm nangu nga ko jéemuloo xam amuloo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne aksaru ahlil jannati al bulbu wa innama il yura li ulil albabi ñi gën a bari ci waa àjjana mooy ñi nga xam ne xel yu gàtt lañ amee dañ leen di wax rek ñu gëm duñ jéem xamuñu jéemuñoo xam waaye nangu nañu rek nee ñu di noonu la wax dégg naa ñu ne daal ku dee àllaaxira nangam a fa xew nangam boo duggee ci bàmmeel nangam ak nangam a fa xew nga gëm ko jéemuloo seet na mu demee ak lu mën a am laaj lu mënula am déedéet yooyu sa yoon niwu ci gëm nga ko rek ñi gën a bari ci waa àjjana mooy ñooñu borom xel yi nga xam ne nag ñoo seet tam tam xam da nga xam ne leeru yàlla moo dindi seen xel ba ñu xam la xew ñooy wa innama iliyona li ulil babi ñooy dëkke kër ya gën a kawe ca àjjana waaye ñi nga xam ne nag dañoo amee xel moo xam ne li fi nekk bariwul rëyul du dara ci yàlla ñu ngi koy faral di misaale ci tubaab ñu naan le monde des dimensions adduna bi nga xam ne matière la lu fi ne matière la am lu rëy ak lu tuut nga xam ne lu tuut lu rëy ko ëpp lu tuut mënul xaj ci biir lu lu rëy mënul xaj ci biir lu tuut lu so am lu sori ak lu jege nga xam ne dem fu jege moo gën a yomb dem fu sori yooyu yëpp amatul foofu bu ñu jógee ci adduna bi adduna ba ñu jëm yooyu amu fa boo gisee yenn ci borom xam-xam yu mag yi ñuy sikki sàkka wala ñu naan rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gént la woon wala du gént wala nii la ñàkk xam la ndax suñu borom tabaraka wa taala ndax masalam mi'raj du masalam masaafa masalam fu sore ñu asamaan sore yooyu déedéet masalam kiiraay doo nga la kiiraay loo xam ne buñ ko muree rek lépp di dal di jege nekk fii loolu rek la li nga xam ne noonu la malaayika yi ak jinne yi jaxasoo ñoom jege nun te duñ leen gis kiiraay gi nekk suñu diggante ñoom buñ ko doon ñore rek ñu jàlloo ñu ñu jàlloo suñu morom yi naka noonu la kumpa yu bari demee jëmm ji nga xam ne nag gëm na li nga xam ne wax nañ ko ko te xam-xamam ak bul ci mën a xam na mu demee mu nangu kooku mooy aji texe mooy aji texe ji nga xam ne bi Muusa alayhi salaatu wasalaam sànnee yet bi mu nekk jaan ñoo ñaa dal di gëm ba nga xamee ni itam génn na loxo bi mu mel ne jant bi ci kanamu Firawna ñu dal di gëm ñooña ñooy albulhu seen ngëm nag ba tey ñee leen gën a dëgër ngëm lu tax ndax ñooñu ba nga xamee ne Saamiri yu tabax na ñëkk bi nga xam ne or la ko tabaxee tibb ca suuf sa nga xam ne ca la fasu sidna Jibril daan taxaw ndax Jibril roox la fasam roox la ka roox lépp lu mu laal loola day dund suuf soo sa di dund Saamiri yu gis secret boobu tibb ca suuf sa ba mu tabaxee yëkk wa ci or ba noppi dal di koy dugal ci biir yëkk wi yëkk wi di man di nañ di dox ak a wax mu ne leen yàllaa ngi nii ñi nga xam ne ñoo gëmoon ba Moussa defee ñaari kéemaan yooyu mooy sànni yett yi mu nekk jaan joo xam ne wan na jaan yi nga xam ne moom la jabar yëpp defoon mu yëkkati loxo bi mu mel na jant bi kenn mënatu la xippi ba mu ba ñu defee kéemaan yooyu kéemaan yooyu tax leen a gëm ñu bari ci ñoom ñoo gëm saamir yu ba mu ne suñu borom a ngi nii moom la Moussa seeti waaye dafa dafa dafa juuyoo moom ndax ñoom lu leen yéem rek ñu dal di nangu loolu moo tax waaw léegi ñu ngi wax ne seet nañ ci montre yi timis ji jege na ñu kon léegi ñu war ko waajal ñu am benn laaj itam bu ñu laaj na laaj naka duñ ko xisaab mooy bi boolee jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ bi mooy dugg ajal duñ ko xisaab xam ngeen ne kon jaamu yàlla ci la liggéey bi ci la liggéey bi yaatu na su nekk gisu leen ko waaye yéen a koy liggéeyal nii nit ku ku sell ku fi nekkul nañ ko mën a liggéeyale bari na sallallahu alayhi wa sallam doo julli ci moom ñoo ngi koy wàcceel ay kaamil alquran nitu yàlla itam lu sell la lu sell la bëgg kon alquran ak tudd yàlla mooy li mu gën a bëgg mën nañ leen koy defal addiya xasaay yi mu wax itam ni mu ko waxee lépp lu si jublu la dana fóot xol ba mu set dana jegeel nit ki yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi dana tax nit ki di wattandiku bu fekkee ne mi ngi koy jàngate jox ko xaqam jox ko xaqam mooy na ànd ak laab bi ci gën a bari ci jamono yi bu ko mënee na dellu si ànd ak teewlu nga xam ne sëñ Tuubaay wax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay tagg bu mënee jublu penku mu mu def ko bu ko mënul mu xam ne mënu ko boobaa lépp lu mu ci jublu moom ci boppam moo ko wax suñu borom dana ko defal ko defaree moom ci boppam yaa ngi koy ñaanal yaa ngi koy tagg yaa ngi koy gërëm ndax li mu wax ne defal nañ ko ci xasaayid yi bari na jàng alxuraan moom farat la ci jullit bu mu doon xëy te jànguloo dara ci alxuraan sib nañ ko jàng alxuraan limaamul Fasaali radiyallahu anhu nee na fan rek lay wàcce doomu aadama mooy wali kaamil xutbul xaw bi nga xam nekk ne ca xadratu rububiyya nga xam ne foofu ku fa nekk da ngay wedam dootoo gis dootoo dégg xamatoo dara day mel ne amatoo yàlla rek ngay yëg moom ngay yëg ci sa kanam moom ngay yëg ci sa gannaaw moom ngay yëg sa ndeyjoor ak sa càmmoñ sa kaw ak sa suuf xam ne sa xel dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla amatoo amatoo xel ki wala li nga xam ne ma nga ca xadra ba nag foofu la ko jàng alxuraan wàcce waaye waxtu wuy génn xadra ba jàng alxuraan daal koy warati kon alxuraan du wàcc mukk nit ki kon alxuraan salatu ala nabi ndegam al ismul azimul azam li gën a mag nga xam ne ku ko am ku la neex mën nga koo texeel bu soobee ci coobareel yàlla nga xam ne boo ko amee lépp loo ñaan suñu borom def ko doo ko sant mu def ko moom la lu tasaw di wax kun fa yakun boo ko amoon te bàyyi salaatu ala nabi bàyyi alquran ragal nañ ci yow nga yàqule kon ñett yi jàng alquran julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xasaayid yi benn murit waru koo sàggane kon benn xaaj bi njëkk boo nga aji ñaareel bi nu mu ko waxee ci mooy ki nga xam ne daf koo liggéeyal te jaamuwul yàlla ñàkk a jaamu yàlla bi jubluwuñ ci nga wacc farata yi de faaw julli yi juróom ak koor ak yooyu moom faaw nga di ko def ndax boo ko deful moom dootu du nangu ndax li am solo mooy laqad alqaytu afa sa siyaar yi lay wax sànni naa sama yoti ndox mooy am naa musul léegi yooyu du yooyu du ko def yooyu bu ko bëggee jëfandikoo si mu mel ne bëgg dellu si waat si mu nekkoon te foofu mënatu faa dellu si ndax àgg na fa sans borom ba suñu borom di ko ganale ganale boo xam ne du am ab ganale na ko ba moom ci boppam xeeti teraanga yi léem na bëtam léem na noppam léem na xelam xelam dellu nekkatul ci dellu si fi mu jóge woon mu laaj nag sama borom kon ñama bàyyi woon sama gannaaw te ñu toog ak ñoom loola ñooñe luy seen mbir suñu borom mooy ñama ba ma jógee ñene woon ñoom du ñu dem ak ñene woon dañuy dem ñu ànd ak man wala ñu ber suñu yoon wala ñu ànd ak ñeneen ñii dem ba ci yoon wi ñii dee ñii dem ba ci yoon wi lafañ ñii dem ba ci yoon wi gumba ñii dem ba ci yoon wi tële ñii dee ci yoon bi mu ne waaw kon ñooñu ana lan mooy seen xalaat mu ne ñi nga xam ne ñëwuñu génnuñu pour ñu ànd ak yéen ñëw jëm si ci man wala wala bi xuruja la abdu lahu urdatan walakin karaha la um ba ahum fi sabatahu mu ne waaw ñi nga xam ne dañoo dee nag ci yoon wi te ak siwuñu bu yow man yaxruj min baytihi muhajiran illahi wa rasulihi suma yudrikuhu al mawt faqad waqa ajruhu ala allah mu ne waaw man sama njabootu bopp ña ma fa bàyyi te mënuñoo ak si luy seen xalaat luy seen mbir mu ne ko yow mi ñëw doy nga ni nga ñëwee ba ma defal la lu buur say bët danaa la may loo xam ne dana leen doy ñoom ñëpp ba kenn ku ci nekk da nga mën a may ku la neex ba kooka doyle te duñ jee du ñëwule waaye ñi nga sëriñ si nga xam ne nag ñoo xam xeeti xam-xam yooyu di ay tegtal yoo xam ne ñoom ñooy bunt yërmande yàlla ci kaw suuf si di àggale mbindeef yi ci yàlla di xett li nit ñi seeni daraja wuute am si ñoo xam ne boo doxee ba dajeeg ñoom siyaare leen am si ñoo xam ne boo tegee sa bët ci ñoom dootoo texee di mukk te suñu borom dootu la bindal bàkkaar am si ñoo xam ne boo leen yëkkatee les bant rek am ngërëmal yàlla te xam ngeen ne ngërëmal yàlla nekkul daraja ji gën a jege ci texe ndax nit mën na texe gépp texe te du ànd ci am ngërëmal yàlla xam ngeen ne ngërëmal yàlla nga mën a ajal képp ko ànd ak yow xam ngeen ne sëñ bi ci njaag biiram bu nga xamee ne seet na boppam lépp loo xam ne suyux yi am nañ ko mu am ko ci wet gu ne mu gis ne nag li mu liggéeyal yàlla doñu ko ndax am na maqama moo xam ne benn góor yàlla mu si koo am maqam moomu moo loqi bëtam ba tax na mënatu la nelaw waaw moomu bokkul ak maqaam tubbul xaws ndax maqaam qurbaani la du ñàkk ci jamono kon ñu bari am nañ ko ku fa am ku fa am bu jóge fa dañ koy jox keneen ndax secret la boo xam ne mënul ñàkk ci àdduna waxtu waamatul ci àdduna àdduna bi tukki suro la boo xam ne fi wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci àdduna boo koy yenu te bu ko yenoo moom ci boppam bépp mbindeef boo xam ne ak maqaam boo mën a am ci yàlla lépp boo tooyee boo teewee cëpp xadara ba xef sax boo ko defee ci lu dul ndigalam ñu sàbbi la ñu sëlbu la rikki sa ngëm waaye maqaama boobu ñu bari woote nañ ko ñu seet ne maqaamam xatmul wilaayat yi itam am na ci gaa yi yàlla yi ñu ko woote kon maqaam boobu itam kenn rek taxawul ne man naa ko am keneen amu ko ndax xatmul wilaayat yi Muhyiddin Ibn Arabi woote na ko gannaaw Muhyiddin Ibn Arabi am na beneen Chazali bu ko woote gannaaw moom it am na Ahmad Tijaani mu woote ko mooy dir mu arab yi bi ñu ko laajee li tekkalam lu tax mu wax mu ne moom am na ko dafa neewoon moom suñu borom xamal na ko ko ba mu ko njëkkee di xamal dafa dikk taxaw ci kanamu Kaaba gi Kaaba gi ñëw wër ko juróom-ñaari yoon ba noppi dellu fa mu newoon brique yi nga xam ne moom lañ tabaxee Kaaba gi brique bi ci nekk di jóge bérébam ñëw wër ko juróom-ñaari yoon dellu place am ba mu des bérébu benn brique bérébu benn brique boobu moom ci boppam suñu borom def ko muy brique wurus mu dem tooge place boobu ñu ne ko yaay xatmul wilayati ñaareel bi alxakimu turmusi dafa waxoon ci kitaabu xatmul wilayati ne xatmul wilayati bu ñëwee sama tur lay tudd Muhammad ibn Ali moom la tudd moom turmusi nee na bu ñëwee sama tur lay tudd te danaa laaj juróom-benn fukki laaj yoo xam ne xatmu bi rek koy mën a tekki keneen du ko mën a tontu ku dul moom ibnu arab yi ñëwee moo tontu laaj yooyu tam moo tudd noonu moo ciy tudd noonu tur woowu nga xam ne moom la turmusi tudd waaye ba mu fi jógee itam loolu mu wax lépp si Ahmad Tijaani gis na ko waaye wuute na woote na xatmul wilaayati nee na mooy moom mu des nag benn kon xatmul wilaayati kenn rek doonu ko xutbul xaw si kenn doonu ko maqaamay ab daal yeeg awtaat yi ak nuqabaa u yeeg nujabaa u yëpp amu ci benn boo xam ne kenn nit mën naa taxaw ne man rek a ko mas a doon maqaamam nag asna xadim li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaadimu rasul ba ñu xamee lislaam ba léegi benn mi def mosu koo woote te borom bu ñu ko wootee li tax mu ne mooy borom mulkul aali baqi qadim jaalani asna xadim la wax bi nga xamee ne gis na maqaama moom nga xam ne boroom day bokk ci bay at ridwaan ca taxta sajarati boroom rab laqad radiyallahu anil muminina jooju daf cee am cir te boroom day fekk day mu nekk kopp koo xam ne kii dog boo xam ne mas nañ koo sóob ci lislaam dana ca dëbb ba am ca wàll woo xam ne kenn du ko ci ëppale boroom day taxawaay taxaw taxawaayu alquran taxawaay boo xam ne bu mahdi yu ñëwee du ko weesu mu seet ba nga xam ne maqaama moomu mooy mi nga xam ne mi ko yéem ci maqaama yi bi nga xamee ne jaar na ko ci bépp bunt bu ñu ko war a jaar niñ ko misaale ne moom la moo tax mu ne ilay yaqaadalaahu maa lam yakun te ñu xamal ko ne dañ koy jaay te liñ koy jaayee ñi ko mas a waxaale ñëpp muy xëj yàlla yi kenn ku ci nekk bi ñu la waxee li muy jar da ngaa daw moom mu jënd ko bi mu ko jëndee ba noppi ba mu jarit daf koo wis ndax xam ngeen ne bi mu waxee ne minhu istarallahu ka dafa waxaat minhu istarallahu laj bi mu waxee minhu istarallahu laj gannaaw fanweer ak ñett yooyu itam dafa jaayanteeg boromam yeneen ñeent yoo xam ne bokkul woon ci fanweer ak ñeent yi xam ngeen ne yi mu jaayante it yoo xam ne yi benn mbindeef boo xam ne wàllu yu kese nga mënuloo ko tàmbali àggale ko loolu moo taxoon ñi ci des ñi ko nangu ñëpp daw kenn duñ ko mosu koo àggale bi nga xam ne moom àggale na ko it dafa dal di ne wa fi madihi jaawatu kaaban wa xasaana xam ngeen ne kenn koo xam ne ci saxaabi yi saxaabi yi la yoon yi la bokk mu di saxaaba benn mi def sañul ne yem naa ak saxaaba yi ndax si Ahmad Tijaani bi nga xam ne wax na li ko yàlla defal ci salaatul fatih ak maqaama xatmi ak taaju aarifina boobu bi nga ko waxee ne da nga xanaa da ngaa fab sa bopp teg ko ci kaw saxaaba yi dafa ne yàlla tere saxaaba yi su yeenu dox ak suñu dox mi ngi woote wuutee ne mellantaan ak picc mi ñuy wax printemps ni mu gaawee ni printemps gën a gaawee mellantaan yooyu la nu saxaaba yi gën a gaawee dox xam ngeen ne kon saxaaba yi kenn du leen diir mag kon bu sëñ Tuubaa ne wa fi madhihi jaawastu kaaban wa hasaana ka ka ab ibnu Zuhayr bokkoon ci saxaaba yi sëñ bi ne suñu borom def na ma ma bokk ci ñi gë ma bokk ci gën a may ki gën a kawe ci ñi nga xam ne ñooy liggéeyal yàlla ba nekk ci xodamaa wa rasul sallallahu alayhi wa sallam ne itam suñu borom def na ma ma raw ci tagg yonent bi Kaab ak Hassan ibn Saabit Hassan ibn Saabit xam ngeen ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna ruuxal qudus la yu as la yu ayyidu Hassan maa kaafaxa an nabiyihi bi nga xam ne waa Quraysh seeni waykat yëpp dal nañ ci kaw yonent bi di ko xas te xam ngeen arab yi ni fi ñu teg way ku ñu xas ci way xam ngeen ne wayu arab moom arab yi dañoo fonk way day dal di siiw wëndeelu ci adduna bépp di ko wayantoo ba tax na képp lu nit kawe ko xasawee lu darajaam kawe kawe di ko nit ñi buñ ko xasee xas xas wu ñaaw ci wayu arab arab yi jël jël loo ko déggandeem ko kenn ku nekk dégg ko way ko day dal di nekk ku suufi fi bët nit ñi ba kenn du ko teg fenn nga xam ne kon wayu xas way wu ñaaw ci kuy woote ci la gën a bone ndax day tax nit ñi wan ko gannaaw ba dootuñu ko fonk day tax xam ngeen ne waa jooju ñu naan la biig nu rabia den acha la woon sax acha bi nga xamee ne waykat bu mag la moo mujj ci faxoonu shuara yi bi nga xamee ne tagg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xasida gu mag a mag te fas yéene dem madina fekk ko fa waa Makka dañoo dajale alal ju bari ne ko ñu jox la ko taga bañ a dem ci Muhammad ko jox sa xasida gi bi ñu ko joxee alal jooju moom it mu dal di nangu bañ a dem waaye ci déwén sa mu ne bu ma dundee ba déwén moom danaa dem bu ma demee damay jéem waxee way ma way yonent bi sallallahu alayhi wasallam te déwén sa la ba mu ba mu daataan dem la ko gëléem daaneel mu dem ca la doxee dee ba demul nga xam ne kon ñi nga xam ne nag kon daawoon nañu xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci di xas muhaajiroon yi di xas lansaar yi ci seeni way ci arab yi nekkoon na lu métti salaam bëgg ci woykat yi ànd ak moom koo xam ne kii daf leen di tontu ki ko njëkk a proposé ne ma tontu leen te fekk ki ko njëkk a xas bokk ci biir banu Hashim bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko boo koy xas na nga may def man sama bokk ci giir bi mu bokk mu ne ko danaa la seppi ci ñoom ni ñuy seppee karaw boo xam ne dafa wann ci sunguf suñuy mooñ bi nga xamee ne Hassan ibn Sabit tàmbali na nag di tagg yonent bi di xas ñooñu di dindi li ñu waxoon di way way yoo xam ne moo gën a rafet gën a neex gën a gaaw a siiw way ñi ko doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bég na ci ba wane ne ruuxal qudus te mooy sidna jibril dafay ànd ak xastaan di leeral xolam di leeral xelam di ko saat li muy wax muy way bu fekkee ne kon sëñ Tuuba radiyallahu taala anhu wax na ne ci tagg yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggi na ci kaab ak xastaana ñu gis ne ni bi mu waxee ne way yi mu way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti xaaj la wax na ne li mu woyoon li mu li mu demagul ci géej gi yëpp suñu borom nanguwu ko xam nga ne suñu borom nanguwu li sëñ Tuuba li ñu wax ne xasaraatul abraar sayyiaatul muqarrabina fekk na muy woy woo xam ne moom la mu tuddee li suñu borom nanguwul bu ko gënoon xejji beneen xejji yàlla woyoon day daal di nekk loo xam ne dañu naan am na ci ngërëmal yàlla lu mag waaye moom bi mu ko seetaatee ba mu weesoo foofu weesu boo xam ne raw na diggante asamaan ak suuf bi mu seetaatee na mu doon woyee loola dafa ci ruus ba nga xam ne su sañoon du ko woy mu dellu woyaat xam ngeen ne gis bu daf ko woy ñaari yoon muqaddimaat daf ko woy nga xam ngeen ne muqaddimaat bu njëkk ba tàmbalewul woon alhamdulillahi haqqil mubin dafa ne woon hamidtu rabbil alamin hamdan yadumu kulla ayn musalliman ala bikal kali wa bil fami loo xam nga loolu la waxoon xam ngeen ne muwahib bi itam daf koo woyaat way yi bari gis ngeen xam ngeen ne mu la yim suñu boobu daf koo defaat mi nga xamee ne àgg na ci waxtu wuy bind waxtu xaraf bu mu bind day jànloog yool ba xam na mu toll xam na ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggee xam na ca suñu borom bëggee xam fi nga xam ne farasal yonent bi ak suñu borom teg xaraf yooyu muy bind ba suñu borom xamal ko ne ko xaraf yi ngay bind moom laa gën a moom laa gën a fonk ci lu dul alquran du hadis xamal ko ne waxtu woo xamee ne bind nga benn xaraf waa xaraf dañuy bët ba jaayu di fettasu ba xamal ko ne waa jigéen óorul xëy na ca àjjana saway yi la ñuy wayantoo te moom la ñuy bëggalee képp koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne suñu borom màggal na seen texe ba bu ëllëgee ñu di la bëggal xasida yooyu la ñuy waye xamal ko ne mooy yor drapeau ñi nga xam ne ñoo tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam soo ko may bi nga xamee ne may na ko wirdu qadir war may ko wirdu tijaan may ko wirdu saasili ba mu boole wirdu yooyu yëpp mu may ko weneen wirdu boppam mu mel ci biir wirdu yi ni nga xam ne boo seetee saa si nga xam ne ci biir ajjuma moom la ñu tànn nëbb ko te nit ñëpp di ko seet te yàlla xamal ko lu dul ay xejjam yi nga xam ne benn baat lay doon ci wirdu yi mu ànd ak ngërëmal yàlla loo xam ne ngërëmal yàlla li dafay correspondre ak li nga xam ne mooy misaaju wala li nga xam ne ci moom lañ ko njëkk a jaarale ak coonoom ak lim am ci ngërëmal yàlla suñu borom boolee ko kon wird yi nga xam ne moom la indi yëpp jox ko ay xejjam joxati ko weneenam woo xam ne mosu ko woon a jox keneen may ko itam wane ne ko ñun ñëpp doon na leen naa la seenu baax doon la ku ci nekk daraja jëm amoon jox naa la ko boolee sa daraja yi bopp xam nga loolu bi nga xam ne am na ko moo la ne moom am na xarit am na seede am na it waruwaay am na it tànneef loo xam ne lii moom la tànnal xaritam am na ñoo xam ne ñi ñoom seen bopp ñoo ñëw takk ko xarit ak ñoo xam ne moom mooy takk xarit ak ñoo xam ne yàllaa ko boolee ñoom di leen laaj ëllëg ànd ba ñu gis ne saa yi ak bëccëg yi ak guddi yi yëpp dañuy doon njëkkante ñëw di ko takk xarit bi nga xam ne am na martaba boobu xam ngeen ne ñu waxee ci fadat xilaami yow bil xayri ni incha allah ñëpp ñu yëpp ni ñu waxee bi baytu wa ba ne guddi yi ak bëccëg yi yëpp dañoo daw di njëkkante ngir di ma takk xarit ndax xam du ñu xam ndegum sama borom ci képp ku xaritoog man bëccëg yi ak guddi yi di ay seedeem yoo xam ne ñoom ak malaayka yi nga xam ne ñooy raqib ak atid te nekk ci mbaggum ku nekk di bind li muy def ak li muy wax ak yeneen malaayka yoo xam ne malaayka yi yërmande rek lañu du ñu laal safaan ba du ñu gisee ku ca jëm ñëpp di ñoo xam ne ñii dañoo seede dañu koo seedeel seede soo xam ne bu ëllëgee dañuy taxaw ci kanamu yàlla seede ko boole géej da nga xam ne moom la xutba bu leen wanee gannaaw ñu mu wàññi ko di leen dëgale xarit googu nga xam ne moom lañ ko takk di leen xamal ne nangu naa ko nangu naa seen xarit googu mu dëgale leen loolu suñu borom may ko maqaamay saxaaba yi nga xam ne dañu ne woon bunt bu ñu tëj la ndax dootu amati ndax mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jul ñu def yëpp gantu l'islam ñu jaay seen deret ak seen ñaq jaay seen adduna jaay seen nooflaay ak seen bànneex jaay seen njaboot jaay lépp lu ñu amoon ngir jënde ko yàlla fas yéene dee nga xam ne seen deret bu yemal xiyaamee dañ koy peese midaadul ulama yi ak rangooñ yi way ragal yàlla ñi nga xam ne du ñu nelaw guddi dañuy jooy ngir ragal yàlla fanaanee julli ba biir set gaa yooyu nga xam ne seen puur yi ci gëli jëmi ñi fas ya yomal xiyam dañ koy peesee darajay maqaamam waliyu wu mat pour yi itam may génn ci seen gémmiñ yi fas ya gën a diis maqaame wala yooye ñu yégal ko ci ñoom yemul foofu dem ba ne mu ngi mel fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaar ñi nga xam ne ñoom la dëkkaaleel ci madinatul munawwara bu Sayyidina Abu Bakar ak Sayyidina Umar nga xam ne bu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wiyee ñaar ñaar ñi gën a rëy mbir ci jullit ñi mu wane ne fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi demee maanaam maa ngi demee fi moom ni Abu Bakar ak Umar